ni ay fee la mais xam nga ni ay i ah, tur mais dama ni xam nga ni ay fee la ku ñu arrêté ay fee li may wax man li may wax ni ay fee li ñu teg bët la li ma la wax ci Pape ay fee li ma la wax ci Ousmane Sonko ay fee la li meeting bi li fa xew du fa xew le bilan kon kan mooy responsable bi la marche était autorisée euh, le bilan la marche était autorisée. ban ban mobilisation la c'était autorisé. le le le non, bilan, non, bilan bi nga xam ne kenn du ko contesté. Pape c'est, c'est le bilan bul dugg waa déglul xam nga waa déglul Pape <clears throat> li ñu mënta contesté te mu doon ay fait c'est les kilomètres de route et d'autoroute dans ce pays c'est le pont de Rosso c'est le pont de Foundiougne c'est le pont de Farafenni. loolu ñu ngi koy gis. waaw léegi ñu ngi moom loolu ñu ngi koy gis. ñu ngi koy gis. oui la li ñu gisul. liñ gisul. non Pape mooy les cent dafa nag rek liñ gisul mooy les cent et quelques yi ñu arrêté ñu tudd loolu laa bëgg a xam seen i tur ak li tax ñu arrêté leen. xam nga Pape la manipulation la ñuy dundee manipuler sénégalais yi di wax loo xam ne teguñ ko ci benn dëgg Sénégal su nekkoon réew mi ñuy fitnaal doomu aadama yi kon duñ ko xam. ñu ngi ñuy xool ci àddina ndax di rafet rafetlu sunu démocratie pap di rafetlu toi le fait que nga am un espace comme ça mun a inviter quelqu'un du pouvoir de l'opposition de n'importe quel corps am la liberté de ton de dire ce que tu veux ñu bëgg a salfañe suñu lekk boobu naan ñu les libertés individuelles. fii la menace sur les libertés. vient de ceux qui agressent les ñoo koy ñan ñoo koy salfañe ñi agressé journaliste ñan ñoo seen journaliste bi obélisque seen journaliste bi ñu agressé obélisque. Hmm? te mu demoon pour def reportage ñu sani ko xeer molesté ko yàq matériel am dàq ko ne ko toi tu es avec le pouvoir waaw ñooñu ñooy menacer la démocratie mais pas nous. te loolu nag da ngeen war a am courage wu wax leen ko ñii menacer juge yi naa leen xam nañ seen i kër xam nañ seen famille di menacer sunu sëriñ si ñooñu ñooy menacer nos libertés avant d'arriver au pouvoir et eh, il est du devoir Pape de tout patriote qui aime ce pays de prendre ses responsabilités parce que ñii dañ leen a war a wax dëgg li mu bind fii ci lettre bi nga di ma ko wax teguwul ci dara continuer à bâtir ce pays à protéger les plus fragiles parmi nous à travers les politiques sociales et les politiques xam nga loolu. waxoon nga doo xatraayu mais <laughs> yaa ngi bëgg a xatraayu. waaw mais c'est que yaa a xatraayu te li ngay xatraayu dara waralu ko lu dul. Uh-huh. bëgg a génn ci li ma lay po question yi ma lay posé. bëgg uh-huh. ci leneen. Uh-huh. li ma lay wax te mu nekk ay fait. mu nekk loo xam ne ñëpp dañ ci teg bët. mu nekk lu ñaaw. nga bëgg ma wax ne ma meeting mu Mbàkke bi dañ ko autorisé comprendre ma li nga wax meeting boo xam ne wax nañ ko place ko waroon defee Ndoyeen ñu taxaw ñu ne kenn du ko fa defee préfet bi ni ñett ni ñett ngeen waroon nekk ñaar ñoo ñëw donc dañ koy annulé je je peux me tromper. mais ah, selon les informations yi ma am. non man maa lay wax itam dafa nag rek le meeting a été finalement autorisé en effet mais li am mooy sëñ bi ñun on est entre sénégalais la volonté de Ousmane Sonko et de et de ses sbires de semer le désordre ci réew mi mais loolu c'est pas caché ñëpp ko xam lañ def Touba. noonu pap pap man daal vraiment euh, je pense que wax ci nañ wax ci sénégalais yi ils ont réussi à déplacer le sujet. d'accord le sujet léegi nekkatul njàng bi nekkatul énergie bi. mais mais nekkatul les mines. nekkatul l'agriculture nekkatul l'élevage. mais mais Pape mais léegi daal bi yii la Pape Pape Pape c'est dommage Pape sénégalais yi ah. c'est dommage mais wax nañ ci ba pare. mais Pape sénégalais yi ñaar intéressé na leen. Hmm. muy le mandat de votre candidat. ak les libertés individuelles daf leen intéressé. mais tontu naa mais daf leen intéressé tontu xam nga da nga ma bëgg wax ni ma da nga bëgg a su da nga jël ñaar yooyu bëgg ko soofantal mais alors que loolu mais loolu bu réglé wul mais dara mënut a réglé ah. lan moo mën a réglé bu mandat bi réglé lan moo mën a réglé bu liberté yi réglé lan moo mën a réglé non non lan moo mën a réglé Pape dama la ne je suis pas d'accord ak yow soo ma ne qu'on a des problèmes mais pa euh, nga ne ma yaa cent et quelques yu ñu tëj ma ne la cent yi luy seen tur jox ma ci ñaari tur manipulation bi dafa war a dakk ku def ay infraction nag ailleurs pour d'autres raisons suñ la jàppee dañ la jàpp mais un militant pour l'expression libre de ses idées ndax xanaa suñu doon jàpp kay ci Marius Sagna la ñuy jàpp <laughs> wala keneen ku mel noonu ñi nga xam ne bët bu seen ñu wax leen neex dans le pays sans problème fii kay le problème c'est comment encadrer. ki nga wax léegi ñaata yoon lañ ko jàpp. mais pour des raisons objectives mais. <laughs> mais dama ne il est libre il est libre ñaata yoon lañ ko jàpp. mais il est libre. fii problème bi mooy comment encadrer nos libertés et notamment la liberté d'expression pour nit ñi bàyyi saaga yi ak affaire yu demee noonu mais problème mu liberté amul fii sëñ bi yéen tamit nag te loolu waruñ nangu di ko véhiculer. ça c'est c'est de vulgaire manipulation. D'accord. Tu, tu, as la liberté de association la liberté de rassemblement, les gens, ils l'exercent parfaitement. Mais ñun amuñu problème boobu. Mm-hmm. réew mi su amoon problème liberté ñu xam ko. Mm-hmm. Mm-hmm. Pape amul problème mu liberté pour yow mais li mu am jàpp nañ ni aussi lu compliqué la ñi ngi jëm ci ay élection présidentielle ku mel ni Ousmane Sonko mi nga bëgg ay waxam ñu taxañ ko mais taxaw nekk candidat. ñu jëm ci ak moom ci procès boo xam ne ak Mame Mbaye Niang procès bu bu bu bu kenn munul comprendre la ñu ngi jëm ci loolu mais jëmaat ak moom ci beneen procès boo xam ni procès bu kenn mun mënta comprendre la mais loolu yow nan nga ko mën a expliquer Pape ci ay procès yoo xam ni diffamation mais loolu ban explication moo ci war am. amee ah, mais xam nga xam nga par exemple quand on suñuy wax naan Mame Mbaye daf ko yóbbu ci yoon parce que daf ko accusé vingt neuf milliards u Prodac nangam nangam Birahim Seck bind livre. joxe ci ay ay facsimile yu dul jeex. Hmm. expliquer. Hmm. plainte fekk ko ci. moom plainte fekk ko ci ñu war ko ci àtte. Hmm. mais loolu laa la laaj loolu noo ko mën a expliquer. laaj bi mooy lan. exactement mais laaj bi mooy lu mel noonu noo ko mën a expliquer ci réew moo ma ni jàmm rek a fi am yoon a fi am. plainte bu ñu dégg. non xoolal gis nga ah, xam nga xam nga nag xam nga nag xam nga Pape ah boo ko bëggee boo ko bëggee boo ko bëggee waxee noonu dafay yomb quoi. su ma ko bëggee waxee nan non ni nga ko bëgg waaw allez-y allez-y. waxal nu la non laaj bi waxeel nu la neex laaj bi lan la Pape. Euh, la neex. <laughs> sëñ bi wax ma il wax ma laaj bi li mu doon ma mun cee tontu. xam nga xam nga Pape. waaw laaj bi mënu ma ko wax fukki yoon. waaw mais il faut ma xam li may laaj. procès bii nekk ci kanamam. waaw mais procès boobu procès lan la. mais procès la c'est une plainte de Mame Mbaye Niang ci accusation ndax euh, Ousmane Sonko dafa ne que dafa am rapport bu ko épinglé moom mu ne ko rapport boobu amul mu ne ko si rapport bi am na dañ la accusé de xaw ma lan jiñ ko ay mbir euh, ministre bi ma mbay ne ko li nga ma wax yàq nga sama dar te teguwul ci dëgg maa ngi lay yóbbu ci yoon bu nga indi firnde foo naa loolu la de sëñ bi Sonko ne man maa ngi firnde yëpp li may xam naa ko mu ngi sama kër dinaa ko indi loolu kay amul xolo bu wala dafa am problème foofu du yóbbu kayit yi mu ne yor na ko mu jeex wala du loolu. accord. dafa damay laaj ndax dafa am leneen. waaw mais non mais dafa am leneen waaw. Ah, mais leneen li ci am mooy li ñu bari njoxtu ne mën na ci am looloo garaaw maanaam bu ñu demee ba condamnation am ci muy sursis wala muy leneen mën ko tere nekk candidat loolu tax ñuy wax. ah ah waaw mais mais moom am na kayit yi da ko yóbbu nee na mi ngi kayit yi muy ngi firnde yi loolu kay amul problème. wala waxu ko nga dégg ko kooku amul benn jafe-jafe yaakaaruma ne loolu dina jam mi ngi kayit yi nee na moom mi ngi kayit yi mu ngi kayit yu bëri li ñu ne lu bëri moom mi ngi moom nañ ko woo mu dem joxe ko te nee na génn na ne dina ko joxe yow dégg nga ko mu di ko wax te kon kay amul foofu man nit ñi dama foog dañu bëgg a tàggoog seen sago fii fan la fi problème ci woon nee na moom mi ngi kayit yi mi ngi koy yóbbu léegi li ñuy wax lan la. non li mu wax ci kayit yi mooy kayit ci internet bi laa ko gis gisee. déedéet ma ne <laughs> lii la wax. waaw ma ne ci internet bi gis nga ko ci keneen gis na ko ci Serigne Pape waxuma loolu li mu wax loolu de li mu wax dafa ne kayit yi maa moom nañ moo ma indi ko de toute façon seen kayit yi nëbb yëpp ñu on est dans l'administration j'ai tout man je procès boobu du ma koy xool sax talu ma ko nous on ci réew mi tabax réew mi fexe ba nit ñi lu ñu amoon benn ñu am ci ñaar suba loolu lañ tal lii du waxu waaye moom li mu wax ne am na preuve yi kay loolu loo ci wax yow doo ko bàyyi mu dem joxe ay preuve te ñun ñu jublu ci réew mi bi kuy kamaj bi ñu fi jëlee en dix ans bu ko fexe bañ am excédent électricité di ko exporter hmm? le gaz to power ni ñuy def ba prix yi ak kuy wàcc ci li nga xam ne moo énergie si dugg ci réew mi dinañ wax ci réew mi pap mu neex leen dinañ wax ci réew mi mu naqare leen dinañ wax ci koom-koomu réew mi ak développement réew mi ndax nag suñu bàyyee suñu lépp engagé wu en politique c'est pas pour ça c'est pas pour ay waxu petit procès c'est pas pour ay petit euh, rendez-vous d'un homme Euh, qui règle ses petits contentieux mais Sénégal sut na ma sut na la sut na Ousmane Sonko ak keneen il faut qu'on arrête il faut qu'on parle il faut que ñu wax ci koom-koomu réew mi ak liy développé réew mi ak li nga xam ne moo jëm ci éducation ak li nga xam ne mooy fexe ba sunu doom yi am dundin bu gën sunu bos mais c'est pas avec ça ay saaga ay menacer institution yi ay accuser nit ne yor naa preuve yi taxaw di jooy entre les mains des gens naan dañ ma bëgg a def lii dañ ma bëgg a def lii il faut que. xam nga ku am proposition. ci il faut que am proposition pour réew mi nga génne ko teg ko. ci discours bu mujj président de la république. dafa wax ni bu ñu nekkee c'est parce que Sénégal dafa nekk. bien sûr loolu la wax. oui pour ñu nekk. Hmm? dafay fekk. Hmm? climat bi nekk climat bu baax. ah d'accord naa ceeg yow ah dama d'accord ak yow. non Pape. pour cent. pour climat bi baax. Hmm? dañuy fexe ba. képp ku war a nekk candidat nga nekk candidat. loolu mooy lan. Khalifa Sall waroon a nekk candidat ñëpp gis ko. lan moo tax nekkul candidat. mais atte. atte yoon non atte. atte yoon non atte atte bi liñ ci liñ ci wax. Ah, ñëpp dégg nañ ko attention Karim Wade liñ ci wax ñëpp dégg nañ ko. attention atte yoon cest la justice a jugé moo tax moom mënul doon candidat. c'est l'autorité de la chose jugée d'ailleurs amuñ sañ-sañu mën ak yooyu yëpp li ci wax lu yoon atte la ba pare donc xaw ma li ngay wax. xam nga ni nekkul candidat. xam nga ni Karim Wade noonu. Karim Wade Ousmane Sonko Ousmane Sonko. buñ ciy wax Ousmane Sonko buñ ciy wax. mais Ousmane Sonko buñ ciy wax. mais bëgg bañ par exemple fi ñuy jaar mu jaar fa. ñu ñu ubbi par exemple euh, lamb ji ñi mën bàkku bàkku ñi mën a. mais mais mais léegi man dama xamul li nga bëgg lan la. li nga ma wax fii de mooy procès bi am digganteem ak Mame Mbaye Niang wala waxuma loolu. li nga ci xam yow ma xam ko ci man mu doon lu public nga gis ko ma gis ko mais ñoo ko bokk gis léegi yow li nga bëgg lan la kii moo jóg ne ko da sàcc kopparu réew mi am naa rapport bu koy wax bu la épinglé mu ne ko waxuloo dëgg mu ne ko sii wax naa dëgg kii ne ko man li nga wax nii sa porte atteinte à réputation et à mon yàq na sama der ak sama war ma ci àddina bi nañ dem ci yoon su dee yor nga ay kayit nga indi ko mu ne man am na ay kayit maa ngi ko indi mais kon li ngay wax lan la nga bëgg a gis foofu luñ ko bëgg a mu doon candidat te moom mu ne la yor na kayitu preuve yi nga xam ne moom lay indi au tribunal te mu ngi ak moom këram léegi man Pape yow li nga bëgg xamatuma ko lan nga bëgg. xam nga man boo fi nekk. wala da nga bëgg ñu man dama xamul sa laaj bi li nga bëgg la xamul en tout cas li ma gis nii moom nga gis moom la ñëpp gis li ngay wax nag man xaw ma lu mu doon su dee am na leneen looy wax lu dul loolu parce que yaakaar naa ne amul amul leneen lu luñ ci war a luñ ci war a xool day d'accord euh, Pape ni nga ko ni nga ko simple xam nga dafa oyof dafa oyof trop. mais déedéet te dafa yomb trop. Pape mais est-ce que conséquences yaa ngi koy sóoraale. non non non est-ce que conséquences yi yaa ngi koy sóoraale conséquence su lan non conséquence su lii nga jàpp soofantal ko est-ce que yaa ngi sóoraale conséquences yi mais Pape léegi d'accord su ma décidé woon bañ ko soofantal lu may wax leneen aw ma leneen mais Pape li ma gis nga gis su gisee leneen lu dul li ma gis te war ko mun a wax fii ñu wax ko mais li ñu gis de ci man ak yow lii la c'est l'affaire Prodac te du loolu la foog naa loolu la ah, ñoo ko gisandoo ñu dem tribunal parce que ci nee li mu wax amul te kële nee na am na firnde li muy wax ne nañ dem fa mbaxane doone benn mu génnee firnde yi wala loolu loolu lañ gis abe moom jàpp na ni fa mbaxana doy benn dañoo féete te wax na ko ñëpp dégg ko waa mais firnde yi jox la ko yow noo ko génnee jox la ko yow Pape mercredi prochain nga ñëw fii ak moom nga invité ko mu génnee kayit yi ne la kayit mun na ko def nii ne la j'ai les preuves les preuves sont c'est un rapport. xam nga loolu du loolu arrêté wul procès bi. très bien c'est pour expliquer. xam nga ni loolu arrêté wul procès bi ma la ko wax mooy lu ne feng kenn du ko jeex su dee li muy wax am na ko na ko génnee jarul ay voilà jarul ay faux pour lan nga bëgg arrêté procès bi da nga ko bëgg arrêté. non waxuma loolu. Ah, <laughs> non man man sama xam nga man arrêté. procès bi man daal gisuma problème dès l' instant ki nga xam ne mi ngi porté accusation yi nee am na ay preuves de ces accusations mais y' a pas de problème y' même pas à penser qu'il soit condamné man je pense pas qu'il sera condamné je pense que peut-être bu ay kayitam day dem joxe ci loolu daal ci biiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko. ah loolu nag wax dëgg yàlla loolu moom Pape loolu di ci wax ça ne nous regarde pas vraiment loolu c'est une affaire privée aussi boo xam ne suñu yoon nekku ci. affaire privée la quoi pour yow. ñu war a jógee ci yooyu war a demaat ci beneen procès muy procès boo xam ne li ci wax aussi ñëpp dégg nañ ko complot la. mooy ban procès. bu Adji Sarr tout le temps moom laa lay ah, loolu man xaw ma ci dara pap sénégalais aussi ñu ngi koy seetaan di regarder les faits divers ku nekk di wax lu la neex. ñi di ku ñi ay sutura ñi ça va ça vole très bas influenceurs yi tollu fële ñii di ah loolu daal man vraiment ça m'intéresse pas li ma intéressé mooy réew mi ñu intéressé mooy projet benn Bokk Yaakaar le plan Sénégal émergent ak ni ñuy tabaxee Sénégal mu continuer ci trajectoire bii mu nekk te ñëpp ne baax na. Pape <clears throat> loolu intéressé na la loolu lu baax la. Hmm? mais jàmmu réew mi aussi dafa am ci lu mu lalu. ci dëgg dafa lalu ci dëgg voilà. Hmm? dafa lalu ci aussi ñu ràññee. ràññee mooy xam un acteur politique mu nekk un opposant pas paa ku ñu war a soofantal koo xam ne dafa taxaw tey jii dañ fa dem ci élection présidentielle loolu baromètre la am ci taxawaay dafa jiite liste ci législative yi malgré liste nationale am demul suppléant am dem mais ngeen gis li nga xam ne am na ko fa mhm. local yi fépp fu mu jaar ba naka gagné nañ ko mais kooku da koy jël vraiment très au sérieux mhm. doo jàpp ni rek noo ay mbiram intéressé wu ma non ay mbiram leneen la mais loolu yaakaaruloo ni mën na indi benn précédent dangereux la. non waxuma ne les faits politiques yi nga décrire amul waxuma loolu dama ne lii nii ab jànq la bu porter plainte euh, sëñ bi ñu dem fa mbaxal na doone benn li nga ciy dégg yëpp man ko ciy dégg comme ça en rumeur. li ci biir xaw ma ko mais ça reste une affaire entre deux privés. romb na ko kay yow xam nga ne sax romb